ba mun koo seede noo koy fekkee. njott xanaa. voilà waaw mën nañoo jël loi teg ko ci kaw ñaaw njort. am na ñoo xam ne bett nañu leen ci ñu koy def aussi am na fii ci senegal dama ne loolu su fekkee ne am na. Euh, ci seen biir néeg sax amuñu leen fay bettee bu dee seen kër lañ ko defee. Mm-hmm. soxna si yàlla dafa may nit sutura. Mm-hmm. ñun li ñuy wax waxuñu ne loolu baax na. dama ne kuñ ko mën a jiiñ it hmm. loolu du génne dara ci àqam ak yelleefam ak kuñ ko mën a jiiñ kuñ ko mën a jiiñ ak kuñ la ko mën a jiiñ ak ku koo def sax waaw kon ki rey nit rendi nit xanaa teg nit rendi xanaa la lu gën koo for nit dana def dana rendi nit ñu ne la dootoo julli wala dootoo woor wala boo dee duñ la jullee déedéet man foofu rek laa waxee mhm. dama ne waxuma su man xanaa man bu ñu kuy wax ne baax na sax xanaa dañ may romb mhm. mais dama ne jiiñ ko nit diliwul dara ci àqam ak yelleefam en tant que doom aadama ndax yàlla dafa ne wala xat karam naa bani aadama damaa teral doomu aadama te seppiwu ca kenn kon ñun mënuñ caa seppi kenn yàlla def ñu tere ñu am xalaat bu ñaaw ba mu wax ne inna ba'da ba'da dhanni ismun mu ne am na ci xalaat yu ñaaw yoo xam ne xalaat yooyu ci boppam sax ay bàkkaar muy njort ay bàkkaar la xalaat yi ci woom ay bàkkaar la addis yi ko sib fan nga koy fan nga koy teg addis ah? yi yi ñu dégg ne dañu sib loolu nga xamante ne borom ñaari tuur yi ak borom waaw xaw ma dégg nga koom dee bind naa ko article yonent bi <laughs> bi mu fi jógee seen naa Babacar daf leen ne fi aaye woon mu mbind ngeen di bind waxam yi indi leen ko ku ci am na ko indi ñu indi bañ ñu am ab diir mu am ñu mu oo mooy ñu tuddee ko commission neen seet leen addition yu ngeen wàññi ko wax ma ñëw ni ko cinquante et quelque mais motagul soixante non cinq cinq cinq cinq cent cinq cent et mais magu motagul six cent yonent bi bi mu fi jógee loolu foofu la addi si tolloon léegi yéen a six cent mille yoo leen di imprimer xanaa kon six cent mille yooyu yëpp boo dindee cinq mille cinq cent yi ñëpp ay fen la dégg bu baax la ci ëpp ay fen la Buxaari wax la ci ëpp ay fen la te moo yooyu waaw ci la ñuy tënku waaw mais Buxaari itam ba muy bind mhm. dafa wax ne moom li mu wéral ñetti junni la mhm. li wér ci moom Malick ne li wér ci moom juróom benn junne la mais on est loin loin des six cent mille mais ma wax la tey xam nga nooy xàmmee wax yonent bi ci faux hmm. ma xamal leen ko yéen ñiy jàng addis yi hmm. bépp addis boo xam ne dañ ko askanal yonent bi te mu ànd ak jëf jum jëfoon te ñu jëf ko te jëf ja ñu xam ñu xam ko hmm. comme julleeg woor ak nattu moorum koor ak nangam nga nangam yooyu addis yu wér la duñ ko werante waaye addis boo xam dañ la ay wax la waaye yonent bi kon jamonom jamonom xanaa kon amuñu jigéene lu tax waxu ca lu tax defu ca lu tax waxu ca lu tax defu ca foofu la wax ci nekk mhm. yonent dafa tëli ah yéen a ko gën a tëli maa ko fi neel maa ngi sëtam <laughs> ko gën a tëli eh. ba ci kooku naan maamam la du ma la waaye bu maamam la loolu mooy maa jur rek <laughs> kon lu mu jëbale ci man rek xam na ne ci bàyyam lay jëm <laughs> dama wax foofu mhm. cest à que ñoom dañoo dem gis li nga xam ne soviétique yi moom lañ daan def ci jamonoy communisme mooy ku yi sax ñu xam ndax noyyi bi danga ko noyyi noyyi ngir Staline wala pour ku dul mhm. ñoom dañoo dem ba buñ jógee def seeni yëf dox ko ñu bañ ku yàq seen complot boobu mhm. boo waxee ñu ne diw moom wax de nangam ak nangam dañ koo teggi man boo ma teggee teg nga yonent bi te kon yaa ngi ci xam nga fa nga ne mhm. kon kër iblis nga nekk mhm. waaw bàyyi soo na ko mooy ramaw nii bil eh, lal jimaar wa axtaw ana diddu iblis mu ne bañ ma ñu ne ba xeer yi dal ci man dalul ci man man maay contraire bi Iblis lañ doon jam jamaale ma loolu laa leen di tontu. Euh, sànq maa la koy laaj mais mais ñëwuloo ci. souvent da ngay jël ay yoo xamante ne bu bokk ak position yu yenn yi di jël. Mm-hmm. ñu dippee leen ay nitu ay nitu diine. Mm-hmm. sànq euh, ñu boo leen yokk seen nitu diine ci mm-hmm. Sénégal passé wul deux cent ans amul benn sëriñ buñ ciy tudd boo xam ne amul na lu ëpp ñaar téeméer rek amul. waaw bañ bañ fi neegul nag ku fi bu ñu fi neetul ku fi ne man ku fi ne ma ku fi newul ma ne fi tant que bi ngi fii nekk c'est lu mu bëgg wax mooy mooy jàngale jàngalekat yi <laughs> jàngalekat yi ak ak ñiy jàng j'ai répondu à une personne intelligente mm-hmm. <laughs> kon Fatou yaa koy ñu bëri ñu bëri jàpp ne nguuru Sénégal li muy daw mm-hmm. mooy peut-être li mu ko mën a jural ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu koom. Mm-hmm. ndax gis nañu ne am na ay dëkk yoo xamante ne lu jëm ci jàppaleeg lu jëm ci aide yeeg yooyu yëpp dañu leen ko bañal euh, tey bu fekkee ne le président de la république dafa coupé woon la poire en deux bi fi Barack Obama ñëwee euh, yàggul tuuti peut-être mu tranché mais est-ce que bii du woon occasion pour que ñu bàyyi mbir mi dem assemblée nationale ñu voté ko euh, pour que ñu xam position dëggantaan Sénégal ci lu ñëpp di wàllu homosexualité un président Mm-hmm. ne se fait pas héler comme n'importe qui par des n'importe par n'importe qui pour n'importe quoi. Mm-hmm. loolu ma la wax firi ko ci olof dégg nga ko. maanaam gën ñu ko président de goo xam ne duñ ko ne ee eh. rawoon ci ne samba booy di ko ko def du leen gestu. Mm-hmm. c'est pas l'occasion. il n'a pas été interpellé par qui de droit. il n'a pas à répondre. Mhm. n'a qu'à garder sa sérénité séné sérénissime. Mhm. ñaar yooyu jege nañ mais bokkuñu. Mhm. xam nga luy sérénissime. ah tekkil ñu ko Aïcha. sérénissime moom li ñu toggee buur son altesse sérénissime kooku c'est du vieux français. <laughs> comme comme gi ñu yaakaar ne peut-être moom moo tax. buuru Sénégal leeralu ci. non yow soxna si gis nga. dëgg la jàng journaliste mais jàng naa ko. Mm-hmm. amaana ma mën la cee jàngal tuuti. gis nga bëgg a jege bëgg a jege xolu nit ñi bum la taxa saaga xeli nit ñi ndax loo wax mu neex leen di nañ ko nag ci seen xel gis nga euh, gumba ga ba mu toogee jabar ji jabar ji te tagg boppam ni ma rafetee ni ma neexee ree nàngam nangam waaye gumba gi xaroo ko ko mu insisté ba benn bés xam nga lu mu ko tontoo tontu daf ko ne mbaa kon njaacaar yi nañ ma la bàyyee yée <laughs> dégg nga yëf yi demeewul noonu hmm. Sénégal c'est un pays riche qui est en train hmm. de montrer sa richesse ils sont dans les entrailles de la terre et des hmm. mers qui sont sous et des terres qui sont sous mer pour sortir le pétrole et le gaz et l'or de Sabodala